Ousmane Sonko de moom lu ñëpp soxla la lu réew mi soxla la tey dafa gën ci réew mi ndax yàgg naa wax ne Ousmane Sonko moom palaasam du kaso euh, tey itam wax naa ne cin la rek ju tegee ci sawara di baax kon libéré ko ci ni mu gën a gaawee dafa mën a nekk loo xam ne mooy jur jàmm moo indi dal itam ci réew mi ak ci bitim réew ndax dafa am nu ko yàlla bindee noo xam ne du nit koo xam ne euh, da nga koy denc noonu rek nit ñi fàtte ko jërëjëf mbokki internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam jëm ji dootu ma leen ko présenté mooy Serigne fàllu Dramé di seet ci Serigne Moussa Dramé góor yàlla waaye di borom xam-xam bu mag nee naa bokk na ci ñaan ko yàlla yi raw ci réew mi ndax tey boo doon compter ñi am diplôme yi mu am ci langue arabe ak ci science islamique dañ leen di ci réew mi nee naa ko nii rek nga mën a mel lii rek nga sañ ndax sama am Serigne Moussa. bokk na ci mag ñi fekkoon cheikhul xadim xomaat sëriñ bi defal ko duyal ko ne ko demal Saalum defaral ma jaam ñi sëñ ñoo ngi lay ziar di la ndokkeel bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan sur bi promédia ak Bour Gueweul bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fa radiallahu taala anil abdil xadimi riddan yasmalul ala wa sawil mahabba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ buur maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay delloo si nuyu sëriñ Duudu mi nga àndal ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy suivre à bu mag bi di bi Média ak fu ñu mën di nekk nag. Mm-hmm. moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew. waaye itam di ci xaasal nag bu baax ñi nga xam ne ñoo am cofeel rek te yàlla tax. Mm-hmm. ndax damay wax ne sopp nit te yàlla tax lu am doole la te itam daraja la maxamala bu rëy boo xam ne bu ëllëgee ca ñu yàlla di beddi beral leen seen yoon na leen ñëw yële ñëw yéen ñëw leen dugg aljana kenn du seet seeni mbir mm. ñu soppante te yàlla rek tax ñooñu ca lañ bokk kon ñooñu ñu ngi leen di beral ab nuyoo waaye tam di ñaan yàlla comme ni ma ko baaxoo di ñaan ci waxtu wu nekk mu def jàmm waaye itam daf dal ci réew mi waaye tam def ko ci bitim réew di leen sant bu baax di leen gërëm bisimilah. Mm-hmm. sëñ Fallou. Mm-hmm. su peu de temps. Mm-hmm. le président Macky Sall dafay dem fële nga xam ne moom mooy Touba. comme ni mu koy defee à la avant màggal. dem seeti xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mountakha. ñu ci bari nag. am ci rafet njort ni xëj na. bu nee cëpp Touba. bokk na ci jooyante yi ko xalif bi jooyante mooy la libération de Ousmane waaw libération de Ousmane Sonko de moom lu ñëpp soxla la lu réew mi soxla la tey dafa gën ci réew mi ndax yàgg naa wax ne Ousmane Sonko moom palaasam du kaso euh, te itam wax naa ne cin la rek ju tegee ci sawara di baax kon libéré ko ci ni mu gën a gaawee dafa mën a nekk loo xam ne mooy jur jàmm moo indi dal itam ci réew mi ak ci bitim réew ndax dafa am nu ko yàlla bindee noo xam ne du nit koo xam ne euh, da nga koy denc noonu rek nit ñi fàtte ko. Mm-hmm. amul benn bis bu nit ñi di xëy suba ba ngoon te duñu waxtaanee mbiram te duñu ko te duñu ci débattre mm-hmm. ku mel noonu nag da ngay xam ne dëgg dëgg dëgg am na lu yàlla def ci moom loo xam ne moom mm-hmm. nga nangu ko ak nga bañ ko uh-huh. loolu defu defu borom bi la subhaanahu wa taala mm-hmm. parce que innal fadla bi yadillah yuhti man yasha wala yushul fadil di nga bokk ak nit benn lal ngeen tëdd dina la guddi yàlla def ci moom li muy def mu yeewaale ko te yow doo ko yëg donc yàlla noonu lay mayee noonu lay joxe itam comme si bu dee nangu it kenn du ko yëg moom nag dafa am lu ko yàlla defal loo xam ne defalut ko ñu bëree bëri. moom Ousmane Sonko euh, ndax néewaa lool politiciens yi ñu xam ñëpp ñu fi mos a jaar ni ko moom ni ko nitu daara yi joxe nopp ak bopp. Mm-hmm. ni ko nitu yàlla itam joxe nopp ak bopp. ndax damay wax ne rek bu doon ku ñu mën a yàqal la yàqal nañ ko bu yàgg mhm. ci diabolisation ci di ko diaboliser ci anam bu nekk rek boo xalaat mhm. ñoom fob nañu ko waaye buñ ciy jël rek da ngay gis ne du réussir mhm. ndax comme da ngay informer comme da ngay jéem a yàq te ñu ngay waxal dégguñ li ngay wax su boobaa dootul am njëriñ mu nekk koo xam ne nag damay wax ne bàyyi ko ci ni mu gën a gaawee mooy liy jur jàmm ndax bu ñu ko fa bu ñu ko jéemee téye foofa téye boo xam ne téye bàyyi ko fa la su boobaa la muy jur yi boo ëllëgee yaraange mën na cee am rëcc mën na cee am te mën naa jur loo xam ne. Mm-hmm. kenn foogut ko woon. Mm-hmm. parce que mbir yi nag lépp lu nëbbu la. moo tax nag li liñ ci gis lépp du lu ñu mën a wax waaye daal libéré ko nu mu gën a gaawee mooy li nga xam ne moo s'il le faut sax yóbbu ko fu fu mu nekkoon këram. Mm-hmm. Euh, dégg nga. barricade ko sax wala wala ñu defal ko sax ko su teg ko teg mettre ko en su su contrôle judiciaire. judiciaire effectivement yooyu yëpp lu mm. mën a nekk la. nit ki mm. moom moom moom moom. Euh, ndéem atte bi nekkagul lu définitif. Mm-hmm. donc mën nañ koo bàyyi. moom ba tey fa mu taxawoon fa la taxaw tey mu ngi ci. te it moom li ma ci mm-hmm. yàgg wax rek moom du nit ku ñuy xoqatal wala nit ku ñu teg mm, paaka ci kuutam ngir mu deltu ginnaaw dafa dafa am ni ñoo xam ne ni leen yàlla bindee ci wàllum bañ maanaam bu ñu jëlee décision maanaam pour bañ. Mm-hmm. Euh, maanaam amul benn pression boo mën a teg ci seen kaw ba tax ñu teggi seen tànk. loolu yàlla moo koy def ci nit. nit dafay am nu mu mel maanaam pour nga jéem a wàccee dignité maanaam dee bañ koo fekkee moo ko koy gënal. Hmm. donc moom kenn la ci ñooñu donc loolu nag il faut que ñu comprendre que te nangu ko. Hmm. te bàyyi ko ndax téegi it amulul ñu amulul leen benn njëriñ ñi ci ñu ciy dox amulul leen benn. njëriñ est-ce que bëgguñu koo tee aussi ba nit ñi fàtte ko. loolu fàtte gi moom mënul nekk Ousmane Sonko moom du ko nit ñi di fàtte ndax li tax. Hmm. li mu liggéey ci politique li mu liggéey ci Sénégal dégg nga yàlla na yàlla def procès yëpp naal yëpp yegg waaye bu fi jegoon it du xas na dugg ci histoire politique. boo xam ne maanaam fii ba ay ajiyaal maanaam ay génération génération lu ñuy waxtaanee la. koo xam ne nag génération yii di ñëw dañ lay waxtaanee sénération bi nekk ak yow mënuñ laa fàtte loolu c'est impossible. Mhm. du nit ku ñuy fàtte. Mhm. ndax moo ko liggéey lii li ko yàlla defal la Ousmane Sonko moom du nit ku ñuy fàtte moom loolu mënul nekk waa mhm. ba ci ñenn borom baatin yi. di man mës naa dégg kilifa gu taxaw ni. bu dee ci wàllu jàmm. Macky toog ci jàmm. ci réew mi moo gën. mel ni kon ñoom dafa am na ñenn ñoo xam dañoo ragal toogaayu Ousmane Sonko ci réew jàpp ne ko du waa xam nga nag nit ñi dafa am surtout sénégalais yi dafa am lu ñu xastaamu mooy li ñu tuddee benn façon bëgg lu yomb ak dundin wu yomb mm-hmm. te bu fekkee nit ki dañu gis ci moom benn sérieux dafa am lu ñuy xaw a ragal defe ne bu toogee day doon nit fitna doon waaye loolu demewul noonu xam nga li ibnu Durayd wax ci wax ci Maqsura bi mhm. Maqsura ibnu Durayd téere boobu ñu bari di wax ibnu Durayd dafa wax ne léeg-léeg nga gis garab garab gi rafet ak yow lool meññeent mi rafet nga mos ko doom bi naqari mhm. léeg-léeg nga gis garab ni ci bët ci gisin mu ñaaw ak yow doom bi ñaaw nga mos ko mu neex mhm. li ma bëgg wax foofu mooy nit ki maanaam acte yi muy posé dafay xaw a niru yu violence mm-hmm. fekk rek dëgg rek ci ko lal la ko lal ndax dëgg moom dafa metti mm-hmm. dëgg yi dafa naqari benn yombul ci moo tax ñu bari ragal googu lañuy am defe na xëy na bu doonoon ku yàlla teg ci bopp réew mi dafay doon nit koo xam ne dafay confisquer liberté yu baree bari day sonal nit ñi fekk demewul noonu mm-hmm. maître Ablaye Wade defe naa euh, niñ ci liñ ci yu mel noonu defe na nitu ay laa yeggoon nañ sax di waa laay njombe ndax xëy na lu ne def na ko fi waaye gis nga bi mu toogee maanaam lewet la teg mm-hmm. lewet la teg ak mm-hmm. ak tolérance boo xam ne boo mm-hmm. xam ne euh, wax dëgg yàlla Sénégal nga koy jooy ndax lu ko nit mën waxal it xam ne démocrate lool bu mag a mag a mag mag loolu it moo feeñ ci boo demee ci histoire u l'islam xam nga Seydina Omar ibn Khattab nit loon ku wex xatt ku wex xat nga xam ne lu mu yonent bi ku mos a def dara rek mu ne yonent bi nañ nañ dagg bopp bi yonent bi ne ko dee du noonu waaye seetal bi mu wutee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa lewet ba na domm donc loolu la mooy nit ki da ngay defee ne te loolu ragal rek la ndax dëgg ji muy lal ndax nit koo xam ne jaar na ci barab yu baree bari yoo xam ne mënoon naa doxal tàppale am milliards yi ñëpp am te defu ko mm-hmm. dégg nga di doxal yenn yi su boobaa nag ñi nga xam ne dañ doon dund ci pexeek tappale dañuy defee na xëy na kooku bu toogee seen nguur gi dafay dafay jeex su boobaa nag ñooñu ñoo koy jabuli si ak ni ñi fekk demeewul noonu mm-hmm. waaw demeewul noonu kon sëñ Fallou bokk na ci ñi tey bu xalif bi Cheikh Mamadou Mountakha mm-hmm. jàkkaarloog président Macky Sall jàpp nga ni lan la ko mën a ñaan waaw comme li nga wax rek ñoom kenn moom xam nga moom nit nit la koo xam ne xalifatullahi fil ardi dafa am ñoo xam ne seen mm-hmm. taxawaay loolu la mm-hmm. ku wuutu ku toog ci jotaay bu toll ni jotaayu Seexul Xadim nekk rahmatan lil na kooku maanaam ah, lenn rek ngay séenu la na moom la mën a wax mooy eh, na président bi def ak dox ak taxawaay bépp boo xam ne luy mën a indi jàmm la ci réew mi mm. te mooy alistikaana mooy alistiqraar mooy da stabilité boo xam ne moom la nit ñi soxla mm-hmm. donc loolu la koy war a mën a dénk mooy fexeel nga def lépp loo xam ne boo ko defee jàmm ak dal dina mën a am ci réew mi parce que it wag naa wax na jàmm moom mooy sippooru lépp lu mm. nit bëgg a tabax ci àddina lépp lu nit bëgg a tabax su fekkee jàmm amul ca loolu su boobaa nit ko du ko bëgg mën a tabax mooy support bi mm. mooy taawul mooy taawul lépp lu nit mm. bëgg a sottal mm. kon moom fi ñu yaakaar ne donte nit nag mënoo xam li mu war a wax waaye waxu kilifa loolu rek la mën a doon mooy nanga dox ci lépp loo xam ne luy mën a andi jàmm la li tax itam nit ñi mën a am taw feexu mën a euh, euh, continuer seen activité ci ci ni ñu ko bëggee parce que nag réew mi fu mu ne nii dara doxul daanaka lépp taxaw. lépp a taxaw ñaari at mm. yi yëpp am Ousmane mm. Sonko ndi Adji Sarr. moom mm. daanaka rek ci réew mi ci loolu la nekk. daanaka ba nit ñi politiciens yi sax liggéey bi ñu ta waroon a tal dëgg taluñu ko ñii ngi ci plateau yi. boo xoolee ñaari at yi yëpp daanaka loolu moo fi nekk su ko defee ñii su ko defee ñii dem ba affaire bi jur loo jur loo xam ne daanaka ak eenante la ak bañante goo xam ne kenn mosu koo gis ci politique Sénégal te loolu mën naa ñàkk. te loolu mën naa ñàkk sañ na ko. dama wax ni situation réew mi am na ci baat ndax tey boo demee Saalum ca Daaru Pakkacar mbooloo mi leen yàlla dénk macha allah sañ na wax sëñ Fallou Dramé borom xam-xam góor yàlla sëñ bi dikk ci ñaan yàlla. Mhm. tey dama ciy jukki rek ñeenti point mhm. ñu waxtaanee ko rek ci xam-xam. Mm-hmm. loolu gone naan bàyyi ko mu suus. Mm-hmm. ñëpp jar ñu ci. Mm-hmm, sëñ Fallou bëgg naa ñu dellusiwaat ci set muy benn tom. ñaareel tom bi bëgg naa ñu wax ci wàllu ubbeeku. ñetteel tomb bi bëgg naa sëñ bi ñu wax ci wàllu ngóora ndax ngóora ba tey mu ngi continuer di def di def ay ay ñetteel bi bëgg naa ñu wax ci diggante cat ak làmmiñ ndax lu sonal doomu aadama yi sëñ Fall sa diggante ak seet man bi ma fi toogee ak léegi macha allah li ëpp ci say appel allah je te mooy sëñ bi damaa bëggoon xool samay mbir te sëñ Fall man xam du du dara lu xaraam ci ay jalañ ci ay petaaw maam ci fi mu teg tànkam mooy sharia ak sunna ak alquran ju leer mm-hmm. waaw sedde moom day lu mënul ñàkk ndax damay wax ne maanaam ne même nit ki bu woote woon ndax wax aajoom wax yitteem mm-hmm. du tee lu mën di xew daañu ko seetal balaa ñuy def dara mm-hmm. moom kon loolu day wane rek seet gi mënul ñàkk ndax solo si mooy comme nit ku ci nekk ni ma koy faral di waxee lay faj aajoom bokk mën naa wuuteeg lay faj aajooy keneen te sax seen seen aajo mën naa doon benn te yoon wuutee loolu nag xam-xam moo ko tëral xam nga ñaari nit mën nañu bokk ñëpp seen bopp di métti waaye mën nañoo bañ nag lay lay lay causé seen bopp yi métti mën naa bañ mën naa faj kii waaw te fekk na mënut a faj ah, kii c'est-à-dire li ma bëgg a wax foofu sax mooy hmm. mën naa am kii li tax boppam bi di métti ay virus moo ko dugg. dëgg la mën naa am kii li tax di boppam bi di métti kafe gu mu waroon naan rek la te xëyul ko naan la. dépendance ci kafe wala ci ataaya. donc voilà wala boo xëy na naaj bu tàng bi mu dox la. Mm. dégg nga kon mm. causes yi maanaam sabab yi mën naa bare. Mm. loolu mooy solo su set maanaam boo seetalee nit ki ba xam jafe-jafe bi lan moo ko moo maanaam problème am lan mooy cause bi. dëgg dëgg dëgg foo nga xam ko. boo xamee cause bi nag xam lan mooy solution bi. solution yooyu nag nit ñi dañ ciy wuutale kenn ku ci nekk ak lan mooy solution am. léeg-léeg nit ñi mën nañu bokk benn aajo waaye solution yi du doon benn. dëgg la la koy walaat itam mooy la koy causé du doon benn. Mm. donc cause yi bu ñu wutee rek forcément solution yi mën na wuute. loolu mm. tax kon seet gi obligation la obligatoire la mënul ñàkk. Mm. léegi beneen ba ci des itam mooy seet wax naa ne ni ma koy faral di expliquer seet yu baree bari la yu ñu gëstu. jàng ko ni ko ñëpp di jàngee waaye damay faral di wax ne bi ma ci gën a doy ginnaaw listixaar bi yonent bi jàngale muy ñaari raakaan yi ngay julleeg ñaan ya ngi cay def ndax ginnaaw alquran li gën a wér ci lu nit di toxal mooy xaddis mm-hmm. waaw mooy xaddis euh, afdalul xulum bi itlaaqi tawxid rabbina xal itifaaq wa baxadahu tafsirul quraan suma xadisun xaalahu daymaani noonu la ko sëriñ bu mag bi waxee ci masaalik dafa wax ne li gën ci xam-xam yi nit jàng mooy xam xam yàlla muy tawxid xam-xam bi lay jàngal xam yàlla te mooy xam-xamu tawxid ginnaaw ko bu jàllee bi ci gën mooy alquran ginnaaw alquran mooy xadis mm. kon ci wax yu nit ñi dox toxaloo ak di ci sukkandiku gannaaw wax yàlla wax bi ci gën mooy wax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonentu bi bu jàngalee listixaara mm. boobu mooy listixaar bi gën mm. Mm. ginnaaw ga nag ba nga xam ne moom laa gën a doyloo muy listixaar boobu moo di li ñu tuddee raml mm. xel mu la ndax rot na ci xaddis ñi wax ne ci yonentu yàlla Idris la wàccoon mm-hmm. te xam-xam bu wàcc ci yonentu nag amul xam-xam bu ko gën a wér moo tax mm-hmm. man moom laa gën a doy la ka yeneen xam-xam lu tey nag yeneen ni lu ñu gëstu la ba xam ko denc ko mm-hmm. ndax xam-xam moom boo dee gëstu dangay gëstu rek da ngay gëstu lépp xam nga maqaamatul xariri dafa am benn mm, xalaat bu muy doxee te ñu bari euh, ci jàngkat yi euh, topp nañ ko ci xam nga buñ doon jàng xam-xam dañuy wax ne jàngal lépp bul bàyyi dara xam nga nit léeg-léeg mu jàng ba yegg ci benn téere gis na jamono laajatul ko mu tëb ko. Mm. lu mel ni par exemple boo dee jàng luxa boo ñëwee ci daaliya am na ñoo xam duñ ko jàng parce que dañ naan luxal mayit la luxa mayit mooy langue boo xam ne ci ñu koy wax waaw mm. donc loolu mooy tudd luxa mayit su ko defee am ñu bëri duñ ko jàng waaye am na ñoo xam dañ naan da jàng ko loolu itam dañuy wëyee rek xalaatu ki nga xam ne moom mooy euh, imaam Hariri ndax imaam yi dafa wax na booy jàng xam-xam da ngay mel ni kuy taxan guddi xam kii taxan guddi ci àll bu lëndëm mënul xàmme mattuk ratak gu dimbak gu daqaar ak gu salaan ah. day dajale rek léegi nag bu bët setee mu tànn yi mu soxla kii saako xam-xam-xamit noonu la mel su ko defee nag boo mm. dajalee yépp nag yow nga xool ya nga ca soxla nga di ko jëfandikoo yeneen ci des du ñàkk nit dina ci am soxla nga nga nga jàngal ko ko mm. waaye daal moom seet borom bi defal nañu ci tawfeex ju nga xam ne ginnaaw jàng jàng ko jàng nu wér mm. yàlla defal nañu ci tawfeex defal ñu ci barke ba nga xam ne képp ku yàlla dogal ñu seetal la lay sa jafe-jafe daañ ko gis lay sa leçon bi itam daañ ko gis te daañ la ci jàppale ci carte borom sañu wàllu ubbeeku sama deuxième point ku mm-hmm. mos nga mos ku mm-hmm. nga mos mm-hmm. ni ma koy waxee am nañ ci yu doyoo doy waar. ci façon bu nekk waaye li ci ëpp man damay wax ne sunu lépp rek alquran la. xam nga yàlla dafa wax ne. wa nunazzilu min alqurani maa huwa shifaun wa rahmatun lil dañ ko wàccee ngir mu nekk shifa maanaam loo xam ne day saafara mboolem jàngoro yi. jàngoro biir ak yu biti mooy jafe-jafe yi arrivé nit moo xam lu aju ci wàllu physique la mooy ci jëmmam wala boog lu nit mënul làmb daj ko la mooy njàqare yi. nit bëgg a sottal dara yu mel noonu yooyu yëpp nag alxuraan moo ci gën a gaaw comme solution hmm. waaye itam alxuraan yërmande la ndax sëñ bu mag bi nee na bépp jàngoro bu sax xel daj alxuraan da koy saafara ci jas bu hmm, hmm. huwa sifa min kulli daa liman alayhi hamada wa man abahu turida sa hasratin wa nadami mooy téere bi nga xam ne mbooleem jàqare mboolem jafe bu nit am mboolem jàngoro bu nit am alxuraan da koy saafara ñu ne ko ci kan nag mun a liman xali ihtamada ci ku sukkandiku ci alxuraan mooy la ma waxoon ne alxuraan bala nga cee mën a dimbale nit day fekk yow nga gëm ko li alxuraan di wax itam nga di ko jëfe li muy digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi te di ko mm. jàng mm. te di ko sellal te di ko settantal su boobaa saa yoo ko wooye mu wuyu la waaye ne su fekkee yow sa yoon nekkul ci alxuraan doo ko jàng doo ko jàngalu doo ko safoo ba noppi nag bëgg na da ciy faj aajo xam nga ne loolu mënul nekk mënta nekk waaw mm. donc loolu yàlla sa moo ko waxal boppam ci alxuraan képp ku du mooyu alxuraan nee na fii ci àddina sa dund dund gu toskare la waaye boo ëllëgee yomal xayaam itam booy dekk da ngay dekkaale ak ngumba mooy sa bëri du gis ku dekkee ak ngumba na bëgg jéggi jéggi siraat ak nañ ci wax ca sewaay baak yëngatu baak yooyu su boobaa dina doy waar dégg nga kon loolu ñu bàyyi ko xel moo tax sunu lépp rek li ci bu li ci ëpp alxuraan la ndax ci lañ yar moom la ñu xam mm. te moom lañ gën a doyloo te ci yàlla la jógee di waxam bi koy représenté ci kaw suuf kon amul lu ko gën a màgg amut lu mu mënut day dellu ci rek ci nit ki sellaayam ak dëggoom ak pas-pasam digganteem ak boroomam mm. ndax yàlla wax na ci hadisul xudsi yu ne sama jaam bi fo njortoom toll ci man rek foofu laa ko toll bëgg la donc kon kuy njortu dangay njortu lu rafet yaay itam fexe ba doxal sa diggante ak alxuraan koo lëre goo xam ne la moo koy lal bëgg yàlla moo koy lal su boobaa loo ci defal nit rek yàlla la koy moo tax suñu lépp ci alxuraan lañ koy jaarale surtout ci wàllu ubbeeku boobu nga laaj nit ki def itam ubbeeku yu jéggi dayo loolu itam day dépendre ci nit ki rek capacité am fi mu toll. Mhm. ginnaaw bu ñu ko xoolee ba noppi. ndax tam léeg-léeg mën ngaa defal nit ki benn façon ubbeeku bu nga xam ne au lieu que maanaam dina am ubbeeku moom waaye après la ciy topp loolu moo mat a bàyyi xel. Mhm. soo ko duggee ubbeeku yi dafa am. ay catégorie dafa am ay niveau waaw. ubbeeku nag yi ci ëpp ëpp doole bokk na ci li ñuy tuddee samsul bilaat. Mhm. samsul bilaat Euh, ubbeeku bu doy waar am na sax ñu koy wird am ñu ko wird boole kook sangu ko mm. waaye ñun buñ ko dee liggéeyal nit ki dañ ko koy jox mu di ko sangoo ñu defal ko wird yi ndax mm. wird yi du ko mën a def ndax dafa xaw métti ay moo ci yoo xam ne yëpp benn bu ko sirka yoon mm. te turu yàlla dafa xaw a bari te samsul bilaad dafa bari mbind mu metti lay doon donc ngir bañ a tudd sax aw tur am na kilifa gu mag koo xam ne bu ma ko tuddoon ñëpp xam nañ ko ci réew mi lu ko yàlla dénkoon ci xam-xam ak daraja turam wër na àddina wërsëgam kenn xamuloon nu mu toll kilifa diine la fii moom wax nañ ne chaque jour da ko doon sangoo benn yoon waaye li mu amoon ci teraanga xam kenn xamul nu mu toll mm. ubbeeku la gu doy waar goo xam ne dañ koy liggéey ak yeneen ubbeeku yoo xam ne yi dafay dellu ci waaqia yi dellu ci alam nasara yi dellu ci warfanaa makanaal yi dellu ci yeneen ak yeneen mm. benn bu ci nekk rek ñun ñooy xam liñ bañ koy liggéey ak nit kuñ koy jox lan mooy raw xaanam ak lan la soxla su ko defee ñu xool ko mu xool luñ koy booleel itam si fekkee ne ci parfum yi la yan parfum la mën a àndal sans départ itam ci ubbeeku gi ñu koy defal su ko defee incha allah. wolof Njaay dafa ne xam-xam du xaw ma bokk na ci. rawatina doomi soxna doomi soxna warul gàkk doomi soxna warul ni xamuma waaye ndokk yàlla sëñ Fallou Dramé suñu boroom muccal na ko ci loolu ci xam-xam bu wér bi sëñ mhm. mhm. bi. arnaque yi mhm. bari na ci na ci te mag ñi ak lu mën a am mhm. amoon nañ ci yu efficace mhm. yii ci alquran la woon yii ci alquran la woon ak i reen yii tur yàlla bu nit ki daan wirdi la nga xam ne dina dund ba am sax quatre-vingt-dix ans di ngénte te bu loor bu saana romb ah, sol ah. caaya nga xam ni góor dëgg romb na yor yor ñeenti soxna kay mm. yor ñeenti soxna te télé du leen moo sax dab sax nag mm-hmm. Euh, léegi nag jamono fi mu toll yooyu nag lu bari damay wax ne rek li ci ëpp moom dama naan fi ma koy delloo dama naan nattub yàlla la moom. Mm-hmm. ndax ni mu manifesté ak ni mu baree bëri na foo ko mën a delloo. lii mën nga ko delloo ci xeetu façon nit ki dund wi muy dund environnement bi mu nekk mm-hmm. dégg nga. ndax nit ki am na benn façon dund bi muy dund bu fekkee du yëngatu nekk ci benn environnement loolu am na lu muy def ci ay organam su boobaa loolu mën na dem ba indil ko néew kartan mm-hmm. xam nga bu njëkkoon nii àddina tëddee tëddeewul woon nii daanaka ñu ci bari ci àll bi lañ nekkoon ñu ngi def seeni activité tout le temps mm-hmm. donc nit ki di lekk dugub du lekk cere di lekk yu mel noonu façon lekk yi daan na ci suyee ba nga xam nit ki yooyu mën na ko bañ a bañ a mm-hmm. léegi nag léegi lépp dunduk borom barke da nga koy def sous commande maanaam fi nga toog ngay toog di def lépp maanaam nit ki mouvement am dafay wàññeeku mm. loolu nag su fekkee naa am na te nit ki maanaam yay joxe yooyu yu ci bari mënu koo bàyyi su boobaa ngir mu mucc ci jàngoro yooyu dana nekk lu jafe jafe jafe mm-hmm. waaye nag teewul nempes koo xam ne yàlla dogal na lu mel noonu arrivé ko ñi li ñu njëkk a def rek mooy seet ko ci ak seet ba xam boobu jàngoro arrivé ko lan mooy cause bi lan mooy sabab bi mm-hmm. ndax damay wax ne bépp mbir mënoo ko saafara mënoo ko régler te xamoo cause bi moom mënul ñàkk loolu mooy mm-hmm. njëriñul seet bu ñu xoolee nag ba xam na ndax feebar la bu ko dab wala ba xam rab la dégg nga yëpp day am ba xam jinne la ba xam dañ koo takk xala ba xam ndax dafa joteeg nag jigéen jum warul séqal te ay waajuram ñàkk ko ci façon boo xam ne ku joteek moom boo ca jógee dootoo yëkkati sa bopp day am mm. ay waajuram mën nañ ko ci def comme borom këram mën na ko ci def mm. dégg yooyu yëpp day am nag am na ci koo xam ne la ko dal mooy dafa séq ak warul séqal am na ci it koo xam ne lu dul mën naa defuñ ko ci kookee waaye nit kookee mooy nit ku laab koo xam ne maanaam forcé nga ko ba joteeg moom loola dal la ci. Mm. après yooyu yëpp day am waaye nun buñ ko seetee rek daañu xam lan mooy cause bi bu ñu xamee cause bi nag mm. maanaam sabab bi. Mm. su boobaa daañu xam wan yoon lañ koy mën a jaarale pour dindil ko loolu définitivement nga xam ne dootul ko arrivé incha allah. sëñ bi diggante parce que léeg cat def ñu jiñ rab. léeg rab def ñu jiñ rab. te man ci yow laa déggee. foofu nag foofu nag li ma gën a li ma gën a ragal mooy li nit ñi gën a doyadil mooy cat fu ne ay rab ak jinne gi yëpp cat a leen gën a doy waar te nit ñi bàyyiwuñ ci xel mukk mukk mukk mukk dëgg la faj jinne gis nga ni mu jafee ak rab yaa gis ni mu jafee mm. faj cata ko gën a jafe mais cat dangerosité boobu moom cat dafa moom danger boobu danger boobu moom lu ko yóbbee cat min sari xaasidin isa xasad yàlla wax na ko ci alxuraan mm-hmm. te sëñ bu mag bi bind na ko ci euh, ci ci sindii di okun mm-hmm. moxi seen la naa min sari si xasadin maxsari fammin wa sarian yàllaahu donc dafa am tooke ju ci nekk joo xam ne donc waa da ci muslu mm. sëñ tubaa nag lu muy dem ba di ci muslu ku ne war naa xam ne loolu affaire affaire la bu sérieux boo xam ne kenn waru koo tuutal nag ah. te yonent bi it santaane na nañ ciy muuslu moom cat ndax euh, moom li ko wala fi di fiire mooy bu rayul semmal mm. te yonent bi salaa salaam wax na li ëpp sama xeet yi boo ko seetee da nga gis ne cat ci boppam moo leen dugal. baax bi dëgg boobu da koo man moo ma jaaxal. waaw xam nga loolu ci ci tooke la buy nekk ci làmmiñu nit ki wala bëtu nit ki léegi nag nit ki mën na ko bañ a xam ñi ko dëkkal it mën nañ ko bañ a xam am na it ñu koy xam nag ndax duma tudd benn kilifa. am na kilifa goo xam ne ku ko mos a jox loxo rek dina xam yow ban façon din ak lu nekk ci yow yooyu da koy xam ndax day vibrer ci loxoom mm-hmm. waaw loolu secret la boo xam ne yàlla dénk nañu ko léegi loolu am am na ñu koy mën a xam ñoo xam ne buñ gisee nit daañu xam nit kii nit bët bu aay la wala làmmañ bu aay la mm-hmm. am na ñoo xam ne lu ñu tudd mu am ayib mu am sikk am na ñoo xam ne lu ñu xool mu am sikk loolu ñu tuddee almihyaan bu njëkkoon ci jamono yonent bi dees na ko mën a ràññ te yonent bi la lam ci joxewoon lim ci digloon mooy fu ñu ko xam nañ ko denc mu bañ di xool mbiri jàmbur ñu yàqu gis nga kon kon loolu affaire bu doy waar la. ku toll nii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag loolu foo dem mu ngi fa foo dem catang fa. Mhm. ndax ayu bët la ak ayu làmmeñ ayu bët ak ayu làmmeñ nag foo dem fekk ko fa. Mhm. kon loolu nit ki da ciy war a war bañ ko sàgganee di ci farlu. dégg nga mhm. musli gu rog doyul waaye di am càngat wala sarax ñu koy tegtal mu di ko def ngir mën a mucc ci loole ndax gis nga nit dina doon koo am sens am départ bu rafet war a jóg jëm ca kaw jékki-jékki mab bu rës dem ci mm. suuf te dara waralu ko ñii naan ko jinne la ñii naan ko rab la yàlla xam na ne cat doo nga ko jàpp boo dindee ci moom cat mu delluwaat fa mu nekkoon donc cat dafa garaaw dafa yàqal nit lu bare bare bare bare bare bare hmm. léeg-léeg nit ki yeewu sax ginnaawam gi di métti jàpp colonne vertébrale bi mooy yàqu digg ginnaaw bi mu defee na xay na dañ koo sëf wala dañ koy liggéey fekk cat dong moo nekk ci moom du dara day dem ba day jàpp sa sa yaram donc noonu lay def mën na dem ba yàq say organe donc cat lu doy doy waar la loo xam ne bëgg naa nit ñi gën ko bàyyi xel waaw hmm. bëgg naa nit ñi bàyyi ci xel damay wax ni bànneex rek lay doon saa su ne bu ñuy waxtaan ak moom ndax li ñu ci jëlee la sëriñ fàllu looy tàggoo ñu jox ak gars yi dig daje ndax man a yow moom diggante altine la ak talaata bés dox ci la ma daan wax rek lay waxaat fu ma toll mooy dama leen ne woon sëñ Fall Dramé mi man buur man maa ko garanti ne leen wallaahi wallaahi yàlla sama borom dimbali na ma ci mbaaxam. booba tey mu ngi def ay résultats te wax dëgg yàlla ko yonent bi dara lu négatif jotuma ko ci moom. bu la waree seetal dara la seetal bu la waree tëjul dara la tëjul bu la waree saraxel dara la saraxel bu la waree ñaanal dara la ñaanal ci li nga jot sag ñaan ci ni nga ko bëggee yow bi may seetaan numéro yaa ngi noonu ma jëla ñaan nga jëflanteeg sëñ Fallou Dramé. nga tàmbali xool mbaa nga essayé xool mbaa nga làmbatu xool ragal naa ni di nga dellusiwaat moom mbaa nga woo ma ne ma bur jërëjëf sëñ Fall looy tàggoo. waaw li ñu tàggoo de mooy li ñuy ubbi woon rek mooy daal euh, jàmm ji nga xam ne yitte ñëpp la. Mhm. te it ku ko ñàkk ku ne rek moom lay doon sa yitte mooy lu koy delloo si. Mhm. ndax dañu wax ne ñaari yitte fu ñu dajee rek jenn ji day jàmm. Mhm. kon nag ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñëpp jàmm buy jaaxle itam ak lu mën di sos mën di sabab seen jaaxle. ñoo ngi ñaan yàlla mu tegg leen ko waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom la caabi féetee ginnaaw ñoo ngi ñaan yàlla mu delloo leen ci seen njaboot ñi nga xam ne ñoo tëdd itam ci lalu hôpitaux yi yàlla na yàlla may leen ak wér ba ñu mën a delluwaat ñoom itam ci seen activité ñu ngi leen sant baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.